Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu vous gan nga ci kër gi nak, le bouton abonnement bi teg bul faté activer walla cloche de notification bi dé ngir baña a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant bon visionnage mbokk yi seen yéenekaay yi dañu koy daal di doore ak las quotidien las quotidien mi bàyyi lépp daal di samp aw laa jëm ci li nga xamante ne moo di commission cellulaire bi ñeel wàllu oka accord bi nga xamante ne ni doxoon na ci Arona Sy ak kii nga xamante ne nii moo di colonel Sarr mel ni diggante Arona Sy ak colonel Sarr coow laa ngi wuy di desu xambin coow li nga xamante ne xibaar bu neex lañ ko doon duppe tey far xalam demoon bay neex buum nga dog la dog buum nga moo di nii dañ doon bàkkoo ko kañoo ko ndamu jëm ci feebarub coronavirus wax ni depuis dibéer ba nëgë ni day Sénégal amul faatu mu moom ne mel ni way woowee doon waaj a neex fi mu toon ni xalam nga daal dinay dog ndax bëccëgu tey bi Sénégal am nañu ñetti doomi aadama yoo xamante ne génn nañu àdduna keneen ku génnul àdduna waaye lank ni du puus te du randu moo di Alioune Sarr njiital CNC mu mel ni nag acteurs yi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllu lamb ji ñoom ñëpp fi mu toon ni seenu xemmemteef lenn képp dong rek la moo di daal fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bii nga xamante ni moom la ñu génn Alioune Sarr sax nag fi mu toon ni daal dinay jeexal nañu fexe def seen kéemtalaay kattan ba am keneen koo xamante ni daf dañ koy uutul keneen ku leen di uutul keneen ñu ko bëgg tamit mu ngi fii ci affaire de mœurs bi nga xamante ne ni amoon na fële ca diwaanu Gambie mu mel ni diplôme wut mi diplomatique bu Sénégal la daal di bëgg a taqal aw deram fële diwaanu Gambie ndax itam nag ki nga xamante ne nii diplomatie la nekkoon foofu ci diwaanu Gambie dañu ko daal di jiiñoon lu jëm ci wàllu wéyal maanaam sàkk koo xamante ne nii dafa wéradi itam ko sàkk koo xamante ne nii ay atam matagul fukki at ak juróom mu mel ni journal boobee ci wàllu dossier bi weddi nañu kàddu yu ni ndax nee nañu xale boobee nga xamante ne nii moo def lu ni mel ay atam romb na fukki at ak juróom-ñett ndax tollu na ci fukki at ak juróom-ñeent yemul ca loolee ba ñu ko gëstoo ba mu leer gis nañu ne ab nigérian la waaye la gën a luus ci dossier ba moo di des d'escroquerie boo xamante ni doon na ko amal ñeel boobu la diplomate maanaam jox may koppar boo ma joxul koppar ma wili pande la leneen lu ñuy wili pande te war koo daal di gën a siiwal ci askanu Sénégal moo di business bi nga xam ne moo dox ci wàllu jàngoro jii di coronavirus fi mu toll nii nag ña ca doon gagné doon ca ami koppar millions ya gafa kay doon fees dell seen chiffre d'affaires tàmbali naa wàcc fim mu toll nii ñu daal di ub l'observateur te daal di ub bi ji quotidien nga xamante ni xëtam mu njëkk dafa daal di def faux départ faux départ bu dul daw waaye du ay xilitam mi ngi jëm nag ci wàllu njàng mu kawe mi di université yi nga xamante ne nii yëpp dafa daal di tàggatéem fii ci biir réewum Sénégal boo demee Gaston Berger doo fa fekk picc daanaka sax mënees naa mënees na koo tëkkale ak marché bu tas bees ndax itam nag amul genn ndongal daara goo xamante ni da nga ko fekk ca classe ya mu mel ni waa Bambey itam ñoom tam dañuy daal di feelu waa université bu Cheikh Anta Diop ndongo yëpp dañoo toog ci seen biir yi kër di naan caayin ak a guuxum soow kenn nanguwul dem ca classe ya loolee mooy li nga xamante ne nii moo gën a fës ci journal bii di quotidien ñu daal di ubbi leneen lu neex ba neex ba tax waa Soleil daal di koy siiwal mu di juróom-ñetti procès yi gën a mag ci atum 2021 bii ñu dëkkmal daal di koy signé wala de ko mu daal di xaw a war a xew nag fële ci diwaanu pôle urbain bu Diamniadio pôle urbain bu Diamniadio bu yàggee boo moytuwul mu nekk capitalu Sénégal fi mu toll nii xappatiwaat nañu yeneen juróom-ñetti procès yu mag a mag a mag a mag bu ñu koy xayma ci suñu koppar toll na ci juróom-ñetti téeméer yu toftal juróom fukk juróom juróom-ñaari euh, million ci su milliards ci suñuy xaalis mu mel ni daal fi mu nii jot na sënkam ngir ñun ñu jóge fii ci Yoff jóge fële ca Ndakaaru Njaay jóge Yaraax te dem samp ji wuti ji kër fële ca jam ñaajo jam ñaajo boo moytuwulee fii at yi di ñëw damay ragal ñuy wax capitale du Sénégal Diamniadio mbokk yi lii moo fi gënoon a ruus ni li moo fi gënoon a fees ni ay tënki xibaar lu ko jiitu itam daan nañu amal li nga xamante ni rek moo di seen tënkum xibaar ñeel bitim réew ak biir réew mi ki nekkoon ci kanamu micro bii di seen mbokku seen xarit Assane Dia Alioune Diop moo nekkoon mbokk yi ci wàllu xarala gi ki nga xamante ni moo di sama xarit ni moo nekkoon ci wàllu rédaction bi cant ak ngërëm na leen